constitutionnel le président Diomaye ce régime bi nga jàppale parce que vous étiez ensemble ci présidentielle bi coalition Diomaye euh, président nga bokk euh, def nañu trois mois au, pouvoir mm-hmm. face aux attentes des Sénégalais des Sénégalais très impatients euh, ces trois mois tey de manière boo def benn bref kii rek résumé ndax naka nga ko gisee non man dama jàpp ni Mamadou ces trois mois c'est parce que trois mois quand même trois mois du bëriwul mm-hmm. mais boo xoolee ci trois mois lu ci gars yi def trois mois d'abord man wax moom mooy c'est la première fois ñu am un président de la république boo xam ni il n'est pas chef de parti. loolu mhm. c'est une rupture fondamentale. deuxièmement dafa jël ay distance ak. dafa mhm. loolu c'est une rupture loolu mu loolu pratiquement mu su fee am. deuxièmement bi ñu ñëwee rek dañu song les assises de la justice. Mhm. woo tous les acteurs de la justice woo ñi nga xam ne sax bokkuñ ci justice société bi woo même prisonnier woo ñëpp ñi nga xam ni ñoo nekk ci société bi ñu boole leen pour ñu defaraat justice bi parce que ñëpp dañu xam ni justice bi dafa amoon problème ak sénégalais yi depuis deux mille vingt xaw ma deux mille vingt et un mm-hmm. léegi pour réconcilier sénégalais yi ak justice ñu convoqué les assises de la justice gis nga conclusion yi temps yi lañ ko war a jox euh, lañ ko loolu rupture la beneen rupture euh, euh, loolu tamit ak la beneen bi tamit mooy gars yi fexe nañu ba nga xam ni ñefe nañu pour wàññi dund gi de façon structurelle. Mhm. xam nga dund gi wàññi nañ ko parce que mënoon nañu ñëw toog rek wàññi dund gi mais six mois après mu yokkat mais dañu ñëw woo nit ñëpp woo acteurs yi waxtaan ak ñu wax leen ce qui est possible ak ce qui n'est pas possible ñu wàññi ko même bu ko nit ñi xeebee mais quand wàññi nañ ko. non wàññi bi taxu ko am solo te aussi euh, sur le marché aussi mën nañ gis que ne du loo xam ne euh, dafa dafay wéy parce que amuñ ci benn maîtrise. Mm-hmm. par rapport ak sunu sunu ñàkk am euh, souveraineté bi bi bi ngay wax. xam nga loolu lépp li koy faj moom mooy souveraineté bi ñuy wax noonu cest à il faut ñu wàññi importation yi il faut ñu bay. loolu ça li ñuy dundee ça va demander du tamit seen il faut foofu c'est-à-dire foog ñu jaar foofu quoi mënuñu mhm. toujours di dépendre ci extérieur gis nga Covid bi am na fi Covid bi gis nga bi mu fa amee gis nga guerre Ukraine bi guerre Ukraine bi blé ñu koy importer boo xoolee Sénégal dañuy dépenser cent cinquante milliards ci blé par an mhm. loolu c'est pas c'est pas normal donc li ñu war a ñafe moom mooy suñu souveraineté alimentaire souveraineté économique daal foog ñu ñefe ko mhm. te loolu tamit il faut nit ñi patient parce que boo déggee ñu naan trois mois gars yi defuñu dara mais mais Mamadou trois mois par rapport aux engagements aussi trois mois aussi bi ngeen di bi ngeen di yootu nguur trois mois aussi dafa tuuti dafa tuuti c'est vrai c'est rien du tout parce que mënuñu mënuñu defandoo lépp mhm. ñun ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci euh, ñi ngi ci dund bi ñi ngi ci institut ensuite ñi ngi ci réduction des comptes tamit ñi ngi ci audité yi mhm. structures yi parce que tamit ñi ngi ba léegi ñi ngi ci l'état des lieux xam nga dañu nekk en même temps ci l'état des lieux di xool di auditer réduction des comptes bi nekk ci dund gu euh, wàññi dund bi mm-hmm. ba pare en même temps di xool structure yoo xam ne war nañ fa yóbbu ay nit changer leen